li sëñ bi nee na woon xam-xam ci wet ñaari xaaj la xam àtte yoon yi te moom du génn lu yàlla waral ak lu yàlla sopp ak lu yàlla daganal ak lu yàlla sib ak lu yàlla araamal benn xaaj baa ngoog ba ca des nag mooy al xikmatu nag moom day ëmb xam àtte ya nga weesu ëmbaale yeneen yeneen mel ni kon dafa dambe xeeti xam yi am njariñ te ñi nga xam ne ñooy tafsir ñu agsee ci wa ma yuutal xikmata ñu di ko firi di wax ne mooy ne mooy ne mooy ne ma ne su kon al xikmatu daa ambu anam yooyee yépp teewul nag daañu ko xam la ci di wax ne mooy wax ju am njariñ joo xam ne dañ koo nos Nous nous de xocc wax ni boo ko déggee tëb jëfi rek top.